maaleykum bi salaamaaleykum. maaleykum salaam sang bi na nga def waay. sëñ bi ñoo ngi fi ñoo ngi jàmm. waaw maa ngi leen di ziar man maa ngi oote ni États-Unis mais damay ñëw rek taal ni yem si yéen ngeen ni teg seen uh, kii bi la wax sa xalaat. acca bismillah. waaw waaw mais mais mais man damay woote rek pour wane ne yéen uh, sa dëkk ba vraiment li fi nekk nii ñaaw na trop. Mhm. waaw li ma gis nii ba image yi gis si ñu si États-Unis lii ñuy wane ñuy gazé Ousmane Sonko mais lii. même ku faraloon Ousmane Sonko sax sa yaram war na daw quoi parce que ñun Sénégal xamuñu woon lii. Mhm. lii ñaaw na dafa ñaaw mais dafa yàq suñu image ñoom ñu ngi def li nga xamante ne mais policiers yi gendarmerie yi may gis man auto gendarmerie bi ma juddoo ba tey man dem dans les temps. Mhm. bi may judd bi may jógee Sénégal. Mhm. daawoo gis un officier de la gendarmerie génn. ay lieutenant colonel wala yooyu nekk nekk si nekk si tali bi di régler ay circulation wala di gaz ay nit. effectivement ay MDL chef nga doon gis ay adjudant gars yi loo loo ñu maanaam ñu des seen grade ah, maanaam kawewul woon ñooñu nga doon gis sur le terrain. Mhm. mais léegi da ngay ñëw man dama gis ay oto yoo xam dama tiit dama lii mais genre oto yëpp ndek am na Sénégal. gendarmerie <laughs> mais yéen Sénégal mais Macky Sall kon moom xanaa développement Sénégal bi yëpp affaire gendarmerie la. ah. affaire répression la daal li ma gis nii affaire répression la. Mhm. bu njëkk ba da gendarmerie boo ko déggee da nga naan brigade gendarmerie nga daan dégg brigade gendarmerie dans Samba Jéeri Jàlloo mais ay dawoo mais léegi ay escadron lu kenn xamul man daal dama yéemu daal man daal jaaxle na. Mhm. mais sang bi li ma leen mën a xamal lu ndaw la gis nga gis nga lu yàlla yàlla suñu boroom. Mhm. lu mu def ba pare kenn mënu ci dara gis nga xale bi Ousmane Sonko mii. Mhm. ku yabu toog di ko seetaan bàyyi nañ ko bàyyi parce que man xam nga lu ma gis man PDS la man man man j'ai grandi avec paa bi Ablaye Wade pour lu ne mhm. dóor nañu lacrymogène lu ne daaj nañ ko temps <laughs> yooyu secrétariat général mu ngi nekkoon face foofu en face monument de monument mhm. waaye man j'ai soixante-deux ans mais man ñi ñu ko gis mais kii bu démb la judd ñun mag yi mag yi kii booy bi bi muy am ñun bi ñuy nekk école primaire ba nekk cm lay doo ko judd mais Macky Sall yenn yi dafa ñaaw Mhm. ba pare rax si dolli ñuy ñëw xale bi toppal rek yow bàyyi ko yaa koy may buzz ñun li ñu gis fii même télévision yee temps yee passé ñu ngi ko fiy wane fii Ousmane Sonko moo mu ngi koy may riir te xamul na mu ngi koy may riir. ah ndax euh, euh, nga baal ma bëgg mhm. xal na na dem. Mhm. mooy jàmm ji daal ak ak maa ngi jégalu am na beneen waay bi ñuy wane Frédéric Nappel la. Nappel waaw l'ancien policier la kooku il a été radié. man li ma lire ci journaux yi nee nañ moom avant lii di xew biñ ko wanee tribunal muy côté Adji Sarr di pousse. Mhm. mais il a mais amul affaire yi amul ay ay laal fii laal fële ndax radié wu ñu ko fii la xarijaan c'est ça c'est pas un policier. d'accord. il n'est il n'est pas un flic nañu waxante dëgg. Sénégal nag gaa yi yàq nañ ko de. ah yàlla nañu yàlla jàppale daal si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla jàppale ba nga xamante ne ne mhm. keneen ku fiy toog fii même bu Ousmane Sonko toogul ci dëkk bi billahi ku fay toog dina am problème bu rëy ah. parce que gis nga gis nga effectif yi ñu effectif yi mu yokk ci gendarmerie mhm. effectif yi mu nekk police mhm. dinañ ko fi bëgg wàññi wala ñu naan dañu bëri daf lañ leen fay bëri na nga nga leen di jéem a raje indi fi sa bopp problème yu rëy a rëy rëy li ma lay wax nii gars yi bàyyiwuñu seen xalaat mais gis nga parce que gendarmerie dem na ëpp armée. ah waaw waaw waaw waaw. affaire yi affaire yi seetaan dafa dafa dafa jar a xool de grand man xaw ma ndax yéen si bàyyi xelam déet. ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax sëñ bi. parce que lii fu mu demee xam nga fan lay garaawee. bu yàlla defoon ba changement de régime am. nga ne léegi policiers yi fi yokkoon. parce que ñu si bëri nee nañu bon yow nga war a libéré ñu ne téye la d' accord si problème mais mais après ñii salaire mais seen salaire mais yow mais sa waay gis nga gars yi billahi wallahi yàlla rek yàlla ñu yàlla taxaw mhm. ñu dugg ci élection yi jàmm ak salaam génn si dañu bàyyi Sonko mu dem doxal d'accord merci nañ ko bàyyi comme tous les autres sénégalais la comme sénégalais yi merci merci man je suis un lébu man je gis naa temps yi ñu ngi ñibbee dóor dóor yi metti eh, ngor kenn mais kenn jàppalewuñu mm-hmm. mais nañu bàyyi waa ji gis nga kii li muy nar indi ci dëkk bi moo fi nar indi ay problème ay ay lébu yi fii ay joolaa yi fii ay soose yi fii mm-hmm. musut a xam lii dafa graw de d'accord merci merci man on oh, nga baal ma tuuti rek on dirait qu'il recherche yi ñi fa nekk ñooñu di ko tiim il cherche le chaos mm-hmm. grand jóg leen lii mais ah yéen a ngi def seen métier moom yàlla na leen yàlla jàppale. amiin amiin amiin amiin merci ak un très beau boulot ñun ñu ngi fii. merci merci actuellement. actuellement il est huit heures vingt et un di wéete man dama liggéeyoon dig si guddi dama yem rek taal si yow. lay ko laaj mais je vous félicite de tout mon cœur. merci merci yàlla jàppale. merci yàlla na yàlla jàppale. merci merci beaucoup yàlla def fa jàmm. amiin amiin amiin jërëjëf amiin ñu bokk amiin ñu bokk. ñu def noonu maa ngi jégalu nag sa wax ji bu guddee maa ngi jégalu. amul problème amul problème merci. merci all right Ben thank you so much après ñu salaam jërëjëf amiin amiin merci merci di la ñaanal jàmm yow itam di ko sàkku ci ñëpp ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ñu ngi euh, teewlu moo mënti xam euh, foo mënti am ci senegal moo xam ndax dëkk ba ma sokkee ko wala di Fandène wala Thiès ah, ah, Morolan ah, fépp fi nga xamante ne daal euh, sénégalais mu ngi fay ñu fa mu ngi fay bàyyi ko di ñu seetaan ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal di ko ñaan kenn lu po jàmm di xaar beneen mbokk ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sa waaj bàyyi nga mën a. bàyyi ma la sax dama ci ay petit voyage rek. <laughs> naka mu. maa bu baax. waaw yow yow yow gisagu ma la Sénégal de Madou da ngaa daw. ah. Madou man nii. waaw. man dama koy daw man samay maam yëpp ci xare la dee. <laughs> Eh, dama mel ni yaa ngi soog a yeewu de sa baat bi tey neexul de. non fu mu toll kay ñu xam naa ne moom le huit bi moom. le huit bi moom le huit bi moom ku mu dëgg Sénégal ne ma mas. léegi laata ñuy egg ci euh, léegi it bi gis nañ dem li nga xamante ne moom moo jot am ci nemmeeku tur gi Ousmane Sonko li ko gars yi am na xam ne ñu ngi naan sax la woon fa woon lañ ko daan def lañ ko lañ ko defati maanaam su génnee dem seeti ay militants wër Sénégal génn waxtaan ak askan wi ñu daal koy fekk foofu noonu di ko gazé di ko sànni ay grenade lacrymogène lii la ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bu ma ciy def nag mooy ñun suñu. takk der yi ñu ngi yow ay gendarme mhm. gis naa ni ñoom ñooy gendarme yi ëpp jot ci àdduna bi gis naa ni ñoom ñooy gendarme yi gën a manqué de formation ci àdduna bi sama gis-gis la nag man mhm. ndax li waral loolu mooy Sénégal insécurité bi fa nekk kenn xamul nu mu toll leer na ma ni village bi Ousmane Sonko dem démb am na si ñoo xamante ne démb la ñuy doog a gis oto gendarme wala démb la ñuy doog a gis gendarme te yow dañ naan capital amul sécurité Sénégal am na si ko ñoo xamante ne waxuma la guddi mais bëccëg sax bu dix-huit heures jotee am na ci foo xamante ne nii tey jii boo dem boo doon dem Sénégal nga jël yoonu suuf comme souvent bu ñuy dem nañu yor suñu ay oto boo jëlee yoonu suuf bi souvent di def lu tolloog ay ay lu tolloog ay. deux cent kilomètres yoo xamante ne nii doo gis sax montage. te loolu lépp ay insécurité la te dañ naan ñun ceinture de feu moo ñu war ci réew yi nga xamante ne moo moo war Sénégal déedéet ay yoo xam ne am ay attaque te koy gis Sénégal à part frontière bi doo ci gis beneen beneen foo xamante am na sécurité. te loolu noonu te bu Ousmane Sonko génnee na day dem ci benn village benn nemmeeku tur rek nga doo ab contestant contestant wu lëmm ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay déplacé quoi. Mhm. ci loolu loolu dafa mën a ñu gisatee moom maa ngi. Mhm. ki mhm. may wax rek ministère de l' intérieur wala njiitum réew mi wala sax ñu ne réew mi jigéen réew mi di dox may laaj ndax première dame mooy réew mi léegi wala wala président Macky Sall moo ko yor ndax réew mi affaire yi fayantoo daf cee bëri affaire yi wujj wujj loo daf cee bëri. affaire nit kuy mer fu mu toll daf cee bëri te loolu boo loolu noonu moom moo moom lañ fi gis. Mm-hmm. ñaata leader politique ñoo am Sénégal bëri na trop ñaata parti ñoo am Sénégal ñaata chef de parti ñoo am Sénégal mais ñëpp kenn ku si nekk yaa ngi yaa ngi dox say activité ñu mën a génn réew mi ñu ngi koy génn ñu def au niveau de international. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñu ngi koy def au niveau national ñëpp ñu ngi koy def. Mm-hmm. ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi ci tournée. mel ne Ousmane Sonko ngay dégg moo moo dem tournée ñu gazé ko. barki démb moo Ndiaye mu di def ay déplacement est ce que dañ leen a gis ñu gazé ko kenn gazé ko parce que xam naa ne dañ naan kii ab ab Ziguinchor waa la Casamance la mais ab sénégalais bu nekkee Casamance fenn fu su nekk man na faa dem kenn du ko gazé waaye la fait que mu jógee Casamance dugg sa biir euh, euh, Ndakaaro rek wala mu dugg biir Kees rek ñu commencé di ko gazé loolu mooy na nga toog Casamance parce que yow Casamance nga doo ab sénégalais. bu fekkee dañoo bëgg xaaj loolu nañ jël indépendance ñu xool ba xam que bu fekkee loolu lañ bëgg nañ ko wax bañ yi nga xamante ne état da ko amoon au niveau wala Casamance bi Ousmane Sonko nekkee maire la ngi bu fekkee daf ñoo bëgg a comme li ñu waaj a a séparer nañ ñi ay lébu la ñoom ñi bu fekkee loolu lañ bëgg nañ ko wax gis nga Sénégal gii benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. kenn koo xamante ni ba Sénégal dem indépendance amul sa menn maam si si juróom-ñaari maam mooy mos a xeex yaa ngi nax sa bopp. Mm-hmm. Sénégal boo ànd ak Sénégal dafa nekk avant juddug Macky Sall. Mm-hmm. kon nag nekkul ne moom mi nga xamante ne moo judd barki démb bu doon bu doon ko judd si la ñuy fal moom du bokk du nekk njiitum réew bu ko judd si alal la ñuy fal du nekk réew moom na xam loolu judduwul ci alal te judduwul ci famille royale mm-hmm. kon na xam ne suñu réew mi du moom moo koy xaaj. tut nañ ci lool ci wax ko ko de waaye réy nañ lool ci wax ko ko ndax ay sénégalais lañ ñu yor seen carte sénégalais suñ juróom-ñaari moom amul menn mu ci génn Sénégal te ñun ay lébu pire lañu dëkk <laughs> Cap-Vert si ñu famille parce que ku bokk si diggante famille Albouri ak Lat Joor kenn mënta séddale Sénégal te doo ci am na xam ni suñu Sénégal bi nekkul ne moom moo koy yàq nekkul ne jigéen moo ñu jiite jigéen mën na koo jiite moom jëkkëram waaye ñun suñu réewum Sénégal jigéen bi ñu jiite bi ñu diriger di ñu wax fan la ñuy jëm bu dee bu dee rànkin dafa am ci entre Marème Faye Sall parce que Marème Faye Sall dafa taxaw lu wax ne moom bu Macky Sall protéger wul famille moom mooy protéger famille parce que du nangu beneen njiitum réew ñëw fii di tëj ak njabootam moom mooy jël ay matuwaayam kaw Ousmane Sonko moom moo jël dossier bi en ah main bisimilah nañ ci dem Sénégal nag dafa toll foo xam te ne li may wax rek kenn ku si nekk na nga wut sa kaaraange bopp parce que guerre civile moom li ma gis nii yaakaar naa ne mën na ko ñëw à tout moment xam ne deful dara nekk ci biir kër. neewul sax ci mbedd mi nga fekk waa kër gi gazé fu nekk nga du grande mosquée yi sax dañ ciy dugal ay gaz lacrymogène quoi di fekk ay nit seen biir kër di leen tiré ay bal kenn xamul ay gendarme la ñor wala ay maire yi kenn ku si nekk na waajal sa bopp kenn ku si nekk na waajal sa bopp jël sa nga bopp parce que guerre civile gisuma ni mën naa ñàkk ci ñun réew fan la ko Macky Sall bëgg a jëmee bisimilah nañ ci dem waaye nag amul kenn kuy taal réew mi pare di ci mucc képp koo xamante ne jóg nga pour taal Sénégal mattam mi koy taal mattam mi koy xambe xam ne si ngay bokk sa famille nekk na si loo xamante ne ni ay kàddu la te maa ngi koy yéegi lii fees si xol yi di yi si xol yi wallaahi wallaahi azim bés boo bés bu kalaatee biir Sénégal nit dina jàkkaarloog nit di ko rey wala du ko parce que nit ñi dañoo yaa ngi bokk bokk gis koo xamante ne nii dañuy jëf Ousmane Sonko ay jëf yoo xamante ne da ngay toog fi nga toog mais sa rongoñ sa day génne doo xam sax nooy def parce que da ngaa sori ki sori di def loolu bu jigee woon nan lay def kon foofu la ñu yegg kenn ku ci nekk na waajal boppam loolu wax naa ko waxaat ko kenn ku ci nekk na waajal boppam ku mën a ñibbi na ñibbi kërkat boo ko amee muy tàkk la nga ci am muy ci ëmb boo ko génnee jàppal ne am na keneen ko xam te ne ëmb ba mu yor am na say say am na sa ay ay ay bagage yu ca ne kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci des foraam nañ jël suñu ay matuwaay ku mën a jege na nga jege merci ku mën a dem na nga dem merci voilà donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant. mais suñu xol neexul quoi. merci Oscar vraiment ça sent de ta voix ñu